asalaamaaleykum soxna si ñu bàyyi la nga joxe tur beeg sant bi ak yaa nekkoon ci kan ci ndem si yàlla maam. maaleykum salaam maa ngi tudd Ndeye Maodo Mané maanaam ma bokk ndaay ak baay moom moo nàmp jox ma maa topp si moom ah. soxna si ginnaaw bañ leen masawoo ci tiis bi fi jot a am ñu bëggoon a xam ndax mën nga ñu defal ay seede ci ndem si yàlla si. Hmm. dëgg yàlla mënuma sa wax parce que ki dem nekk na nit ku xam ne ba ñuy xale kenn mësu ko àtte te noonu la màggaale li sama yaay jur mos da calme jàng moo nekkoon métier ak toog seetaan télé bu ma amee boom kër na ba léegi bu commencé liggéey soutien de famille la bàyyiwu kër gi ginnaaw wax dëgg yàlla mooy too na waa kër gi toppatoo ay njabootam toppatoo ay raqam récemment ba ñuy waxtaan mercredi bi moom ma naa ndey daw naa basoon sonn ñuy njaboot loolu la ma wax mercredi le lendemain sera décédé kon laa xam ne moom mën naa koo seede si moom nit ku gëm yàlla nit ku topp mokk nit ku mun topp mokk mercredi ba muy gaañ si man mi yendu ñoo toog ba deux heures ñu fu ñuy génn mun ma kaay dugg nuyoo kër gi kaay dugg nuyoo fii kaay dugg nuyoo fii mun ma man de fu mu nekk nii sax sama yaay laa gis si gént bi ndax sama yaay dafa gaañu mu fan yëpp yaayam lay gis loolu la ma mujjee wax. kooku ne su demee dina nekk lu métti loolu si njaboot bi mu fi bàyyi moom ak tamit ñi mu bokkal loolu moom mun naa ko seede si maam maane ku fonk liggéey foo ko waxee mun la maa ngi biro maa ngi liggéey. ba tey jii si liggéey la ko yàlla mooge loolu moom mën naa ko seede si moom en tout cas ñàkk nañ metti na fin bi jooy nañ mais sant yàlla dee bi ñaaw na mais sant yàlla ndax mën naa ko seede si maama Maane waaw na sama complice la woon wax dëgg yàlla amul ko metti sa àddina daal wala ñun xamuñu ko bokk du wax kenn lii moo metti musul am lii metti déedéet doo ko dégg soo jàmm sa mun la gëmal yàlla billaahi mu ñëwee sama kër loolu la ma wax ay moo la gëmal yàlla ragal nga dee mercredi jeudi la di sadi loolu la ma wax kon ñoo ngi koy ñaanal yàlla fu mu nekk suuf yàlla xalaat àjjana sa gëm nañu moo ngi foofu gëm nañ ko waaw salaamaaleykum Pape ñu bàyyi la nga joxe tur beeg sant bi ak lan nga nekkoon ci dem si yàlla Mama Mané ah, man maa ngi tudd Ousmane Mané ndey maama nekk sama doom grand frère Idrissa Mané ñu ngi dëkk Pikine Pikine lañu nekk cité pépinière ma papam ak yaam ses frères et foofu lañu nekkoon yaam génn na àdduna yaa quelques années deux ou trois ans ndey maama nag sëy moo ko indi fii HLM Grand Yoff parti bi mu nekk fi ak jëkkëram bu baka na papa ginnaaw bañ leen masawoo ci tiis bi nga xamante ne moom moo fi am ndax mën nga ñëwal ak ñun ci euh, kan moo nekkoon Mama Mané. ah Ndeye Mama de kenn la ci papam papam am na ay doom yu góor ak doom yu jigéen waaye ni mu mel ci papam dafa yeeg papam di ko dimbale lu mu am mu séddoo ko ak sa papam di ko fàtte benn yoon. de temps en temps mu jël papaam indi ko mu def 15 jours ou 10 jours fii ci moom toppatoo na bu baax papaam papaam dem bu ma demee foofu mu ngi doon mu ne ma ñàkk naa ñàkk naa sama soutien principal muy ndey maama am naa ay doom waaye ndey maama fi mu féetoo ah ñàkk naa fi mu nekk nii jaaxale na ndax ndey maama fàttewul papaam benn yoon te fàttewul tamit mbokk papaam yi. fàttewul famille fàttewul ses frères e ses sœurs euh, dimanche rek demoon na fa demoon na fa seeti leen seeti c sœurs yaar kër papam seeti papam donc euh, nu mu mel ci papam daal euh, position bu rafet la koo xam ne moo tax ni mu demee nii mën nañ yaakaar ne yàlla dina ko ubbil buntu arjanna su ko yàlla fayee li mu def fii surtout papam ak yaayam ah yaakaar naa ne fale ah nu mu fa nekkee du metti waaw ah, yaakaar boobu la ñu moo tax ñu ngi koy ñaanal ñu ngi koy jooy nag mais nag yàlla muy maye yàlla muy nangu waaye nag ñu ngi koy ñaanal kii moom mooy ndey maama ci famille bi noonu la mel fi muy liggéey tamit dirti sam démb depuis huit heures le matin moom ak tout son staff directionnel fii lañ jënd ba vingt une heures toute la société agent bu nekk daf ko jox mission yoo demal tribunal yoo demal gendarme yoo demal nii daf ñu ne toog leen man sama société mooy def lépp ñooy jël lépp en charge logistique tout tout tout tout tout leen noonu la ko doxalee soo gisee mu def ko nag c'est parce que ndey maama ni mu mel ci société bi man daf ma naan wax lu baax ci directrice am waaye démb laa ci emploi wax naa ko directrice am ndeymaale maama li mu doon wax ni mu mel ci société bi noonu la mel ci famille bi moo tax fi mu nekk nii ñëpp a koy jooy man gis naa des parents yoo xam ne ça fait trente ans gisuma leen trente ans je les perdu je les ai perdu bi démb gis naa leen ci ndey maama am na koo xam ne sama doom bi nekkoon France ba ñibbisi ba jàng ñibbisi def vingt ans en France ñëw démb bu mu ko gisee mu ne ko PM6 laa la ko gis ce gosse là il était petit maintenant jën jàng na France il a fait quinze ans il la revenu depuis trois ans pour vous dire que Ndeye Maama nu mu mel ci famille bi elle a mobilisé des gens yoo xam ne man sa fait vingt ans trente ans gisuma leen ñooñu yëpp dañ ñëw ci ndax Ndeye Maama ni mu mel ci famille bi donc moo tax ñu ngi koy jooy mais ñu ngi koy ñaanal tamit yàlla. Hmm. salaamaaleykum mbokki internet ñu ngi fii ci HLM Grand yof kër soxna Sile di Mama Mané génn àdduna ni ki démb ci ab accident ñu ngi toog ak beau-frère moom moo ñu dalal ginnaaw bañ leen mastawoo euh, ñu bàyyi la nga nuyoon teg internet yi. waaw en fait euh, man boo frère am laa man may magu jëkkëram euh, jëkkëram ak actuellement il n'est pas là il est en voyage mais présentement il est dans l'avion il est en train de venir donc il sera là vers les coups de 17 heures bon il m'a en fait daf ma délé daf ma m'a tout délégué par rapport en fait au décès de sa femme il m'a confié toutes les responsabilités jusqu'à l'inhumation hier donc euh, voilà en quelque chose ce que je peux dire. ci ndem si yàlla ki nga xamante ne moom mooy Mama Mané. waaw je l'ai connu parce que avant son père c'est c'est c'est un cousin à moi suñu cousin la ñun suñu doom lañu takk je veux suñu cousin la papam mu ngi fii Pikine donc euh, fa lañ dëkk Euh, bu ma koy xam xam nga Tissé sama sama frère bu ma koy ñaan bu ma koy ñaan si jabar man dëggoon daan naa dëgg turam mais xaw ma ko woon mais sama frère bu ma koy ñaan si jabar ci laa ko xam donc ne est parti sama frère ñëw kër ga jël si ma ñu dem foofu parce que ak ànd ak suñu mag yi ñu dem ñu ñaan ci jabar ñu may mais papam suñu cousin la donc euh, en fait c'est ci laa ko xamee ba mu ñëw sëy si fii ñëw si fii donc euh, ñu nekk ak moom c'est une femme vraiment calme travailleuse bu xëyee dem na liggéey bu wàccee mu ngi ci këram bëgg a mbokk euh, bëgg waa këram yi surtout côté papam yenn saay bu nammee papam mu dem jëli ko indi ko fii yenn saay papam bu ko nammee mu ñëw indi ko fii papam elle est âgée mais franchement da koy toppatoo franchement te xam naa ne papam bëgg na ko ci xolam wax dëgg yàlla waaw. seede yi rafet na ñu gis ne aussi anam bi euh, soxna si demee doy na waar loolu yow naka nga gisee loolu ak ban message ngay lancé vraiment autorité yi. waaw ndogal yàlla la d'abord euh, nangu nañ ko mais nu mu demee circonstances yi c'est un peu douloureux en fait euh, accident bi nu mu amee c'est c'est c'est très très très douloureux et très dérangeant. Euh, ñun ñi nekk mbokkam surtout man mi nekkoon foofu jëkkëram woo ma fajar ma daw dem foofu tënnu bu ma soloon bu may tëdd moom laa génnee ci biti daw di daw ba egg fii. ma ci dem boo ma bul xoolee sax le matin di nga xam ne man nii yii laa fanaanoo donc tellement dama tiitoon parce que ku la jógul nga dem sama jabar gaañu na mu ngi ci suuf pont bi tëdd vers les coups de entre six deme et donc xam nga ne kooku. mooy loolu donc jëkkër ji di di moom du ma ko wax ci téléphone muy jooy. macha allah seyde Seyday am na solo mu mel nii rek baax rek a wóor euh, ñu bëggoon a xam aussi lan mooy sa xalaat ci nga anam yi nga xamante ne nii moom la demee ak yan message ngay lancé autorités yi ak euh, ñi dawal ci tali bi. bon ni mu demee franchement métti na métti na trop trop trop man bi ma ñëwee ma ji situation bi métti na ma mais damay teg loxo ci loxo yàlla parce que yàlla. mooy maye mooy nangu eh, ni muy mayee moo ko xam ni muy nangoo tamit mun na décider su may nangu li ma leen may ci conditions yi laa koy nangu mun naa nangu koo xam ne dama leen ko may man nangu ko en deux en une minute mooy arrêt cardiaque te mun leen si dara mun naa ko nangu ci koo xam ne dina teg de un mois ngeen dépensé un million ma xëy un bon jour ma nangu ko te mun leen si dara mun naa ko nangu tamit de manière très brusque comme bu maama mun leen si dara métti na nag mais lépp ci yàlla la puisque nous sommes des croyants day ne yàlla mooy décider le jour par contre ah affaire bi ni mu accident bi métti na trop ça fait du mal à tout le monde ñëpp ay déplorer l'indiscipline des des des chauffeurs ñëpp a koy déplorer man fi mu nekk ni tous les parents qui m'appellent dans les réseaux sociaux partout même dans les journaux ñu ngi koy déplorer xaw ma lan la autorité mën a def mais li moom nañ ko seet parce que loolu yëpp ci indiscipline yi la nga fekk ay nit ñu taxaw di régler problème yow nga ñu ngi fale ak sa vitesse nga yow ni ñëpp tas yaakaar boo xam ne pour quatre personnes parce que on nous a parlé de quatre morts quatre corps OCTO ñoo xam ne ci accident bi plus les décès graves loolu yëpp le matin brusquement comme ça loolu moom indiscipline chauffeur yi indiscipline conducteur yi war nañ ko seetaat nguur gi mun na ko saafara day ñaan yàlla daal mu taxaw si bu baax gérer leen te chauffeur yi tamit ñu xam ni daw jaru ko sa wërsëg di nga ko am c'est pas la peine nekk fii di njëkkalante ba lor doom jàmbur yi sa wërsëg soo doon rouler à deux deux kilomètres à l'heure sa wërsëg di ko am soo doon rouler à aussi di ko am wala doo ko am lépp ci jàllal la yàlla li mu la tegal loolu moom keneen mënul fexe ba jot ko parce que loolu sa wërsëg la daf la ko séddale ba pare donc il faut chauffeur yi tamit ñu xam loolu xam ne piéton yi tamit ci circulation bi la bokk xam na ñoom ak yeneen chauffeur yi ñëpp bokk tali bi ñoo ko bokk ñu essayer discipliné wu parce que lii métti na trop ñu ngi koy jooytu depuis démb depuis démb les parents parlent les familles les connaissances koo gis mu ne dégg na accident bi rajo yaa ngi koy wax métti na trop trop trop trop jar na nag vraiment ku nekk xoolaat sa bopp pour ñu éviter des situations comme ça lii daal laa bëgg a wax comme message pour aussi bien les autorités que les conducteurs waaw ah, les conducteurs du ma wax chauffeur mais les conducteurs maanaam képp ku nekk ci tali bi di dawal muy borom moto boroom oto tu es concerné par ce message la nga xoolaat sa bopp sooy dawal tu réfléchis jàpp ne ki nekk sa kanam ak ki nekk sa ganaaw ay doomu at lañu ay kii kii lañu aadama lañu na nga def nànk bay sa xel ci ñoom lii daal laa bëgg a wax mais bu maamam moom métti ñu ngi koy jooy ñu ngi koy jooy. mais je peux dire que en circonstance yi. Euh, nu mu gisee affaire yi c' était pas joli parce que man lu mooy lu ma mën a wax rek c' est de l' toujours loolu lay wax ma ne les gens ne sont pas disciplinés en conduite pourquoi la manière dont on octroie les, on octroie les permis ici au Sénégal on doit revoir ça d' abord du question dangay ngay dawal rek wala da nga a dawal rek wala danga nga def conduite conduite euh, ak ak kii danga def cours de conduite wala cours de. euh, comment il s'appelle, comment ça qu'on appelle Tu sais, il a deux choses. Donc, il a, en fait, euh, a des cours de conduite et ben, c'est des cours de, euh, voilà, voilà. Donc, euh, lolo, il faut suffit pas que tu t'arrêtes, non C'est-à-dire, on doit chercher. Il a des, on doit pas donner des permis aux gens, bon à tout le monde. i il faut qu'au moins des gens qui soient suivis par des psychologues ou bien psychanalystes ou sociologue yoo xam ne au moins ñooñu mën na jël nit ñi entretien ñu xool ban genre de personne la balaa ñuy doon joxe ay permis parce que luy luy ce qui se passe euh, dans la circulation de sur la route c' pas normal parce que comment se fait une personne ñu ubbi nga ubbi keneen gi mbëkk beneen oto bi mbëkk la rek nga ubbi bunt bu xool di xool nga taxaw ak keneen gi beneen bi ñëw bàyyi tali bi yëpp ñëw jaar sa kaw loolu mooy problème nga ubbi pour xool nu mu la laalee ba pare kenn ngi ñëw rek ñëw dal sa kaw te yow a un temps entre yow bu ngay waxee ak waa ji ak oto bu mu lay fekk foofu ça c'est quoi ça c'est pas de l'indiscipline ça ils conduisent comme ils le parce que gros porteur boo ko yoree oto bu am doole boo ko yoree da nga war xam nooy dawalee surtout parce que c'est des voies de dégagement on doit pas mun nañ mënuñu daw comme n'importe comment comme nu ñu nee nu ñu neexee c'est pas bon baaxul donc on doit revoir ça le système d'octroi des des permis de conduire là on doit vraiment revoir ça surtout maintenant des permis numérisés on doit revoir ça je vais te dire permis de conduire mu ngi ak man ak ak carte grise bi ak kii tey laa ko jëlee gendarmerie parce que demoon naa boo fa ñu may auditionné donc je dois repartir là-bas demain pour présenter certificat de gendarmerie. Ils m'ont confirmé que le gars a été arrêté. Donc lundi, il sera déféré euh, devant le juge. Donc loolu laa nekk di dox tey si suba laa fa jóge donc c'est en fait loolu laa mën a wax en grosso modo quoi. mën nga ñoo jox information si ay euh, bant yi fi jot a bàyyi. waaw ñetti bant la fi bàyyi bon bu ci gën a tuuti moom la feral semaine passée waaw daf ko c'est semaine passée rek franchement ma nga fa ci mu nga ci kaw sax donc euh, on dirait dañ doon tàggatoo yooyu donc c'est un peu douloureux xale bi mu nga foofu waxam yi sax setul noonu donc euh, mais yeneen yi ñu ngi école primaire keneen ki mu ngi ku mag ki moom mooy xale bu góor gi moom au moins war na am ay euh, douze ans treize ans ku ci topp xale bu jigéen la donc xam nga moom moo topp ci moom mais ay tànk ay tuut tànk lañ ay xale lañ quoi waaw wax dëgg yàlla waaw